jano bi jano bi jano bi jotaay politique. voilà mbokk yi dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xam ne moo di jano bi tey nag ñu jàkkaarloo koo xam ne kii Sénégal gi yëpp wërngal kàpp xam nañ ne kenn dootu ko présenté kenn ci wàllu politique ak tamit engagement yi nga xam ne euh, am nga ko ci taxawaayu réew mi wa ñu baree bari sax léeg-léeg même nos confrères la Sénégal bay wala Barth et cetera alors ñuy dalal Barthélémy Diaz ah, ñëpp xam ko xam ni ba léegi mi ngi ci langu politique bu Khalifa Ababacar Sall. ah barke mais Barthélémy maa ngi lay nuyu parce que yow il faut ma laaj loolu njëkk maa ngi lay nuyu. mais maa ngi lay fay sëñ Maodo tamit di nuyu mbokk yi euh, auditeurs yu rajo Sud FM. Hmm. alors barke Dembo Ndiaye wax nga ko léegi parce que loolu il faut nga leeral ko Sénégal yi yaa Ousmane Sonko et puis la première fois ñu ngi ne ñaar ngeen nekk ah xaw ma da ngeen di waxtaan xaw ma lu ngeen di lijjanti ngeen nekk ci biir mbeddi Dakar yi Dakar Plateau foofu dañ doon wax ne bu fekkee marche xaw ma da ngeen doon marche xaw ma gars ay lac lacrymogène lan moo lan moo doon lan moo doon sababu loolu ngeen def provocation la wala da leen a neex rek ngeen def ko wala lu xew. non kooku du provocation ñun ay citoyen lañu teg ci ay républicain mhm. Ousmane Sonko yàlla dogal mu nekk député du peuple fu ko neex mën na fa dem Sénégal waxtaan ak peuple bi mhm. man lu mu bon bon bon nekkoon naa fi député du peuple mhm. te lu mu bon bon bon tamit je pense que moo xam Ousmane Sonko di candidat man mii. Euh, di ànd ak Khalifa Sall te ñëpp xam nañ ko candidat la ci élection présidentielle autorité administrative moo ñu wax fii ak le 26 décembre mën ngeen dem fu leen neex biir Sénégal wuti ay parrainage mhm. parrainage nag mën nga déposer ay sa ay parrainage wante parrainage yi dangay continue continuer di ko wuti parce que mën nañ la woo le 14 janvier ne la sa parrainage yi dafa xaw a takk suuf nga indi yeneen parrainage donc loolu benn am nañ sañ-sañ ci kaw Euh, wutum parrainage bi dem déjà ci askan wi mooy benn bu ci tegu tamit mooy constitution du Sénégal daf ñu may ci ñun ñi en tant que acteur politique ñu mën a dem ci askan wi di waxtaan ak ñoom mm-hmm. mën a jokkoo ak ñoom te ci constitution bi nuñ ko bindee dañu ne à travers la parole la plume et l'image mën nañ waxtaan ak suñu askan kooku la constitution wax loolu la constitution wax donc euh, loolu je crois que leer na ci bopp ñëpp bu ci tegu nag je crois que ñoom suñu sànni loon su sànni wuñu loon ay gaz lacrymogène mais kon débordement yi du am su euh, euh, démb débordement yi du am parce que commencé nañu rond point Petersen di dem tranquillement amul benn débordement ba egg Sandaga amul benn débordement ñoom ñoo créé débordement ñoom ñoo ñu gis xam nañ ko ñun duñu ay bandi ñu commencé duñu sànni ay gaz lacrymogène te pourtant njabootu Macky Sall fu leen neex la ñuy dem fu leen neex la ñuy dem ñoom njabootu Macky Sall tey suñu mun lay dem Petersen suñ suñu mun lay tey dem euh, Sandaga c'est parce que ils ont un problème de sécurité avec le peuple sénégalais mais ñoom fu leen neex la ñuy dem balaa may dee dégg naa fii ñu ne waaw euh, euh, kilifa yu nekk université nee nañu ñun nooru ñu dugg université dinañ dugg université bu ñu neex ah, dama ne su ma baat ci kaw dinañ dugg université su tey dugguñu université parce que dañu doon inauguré Ila Touba te Ila Touba xalif général des Mourides su demee ba taxaw ci inauguration bi ñun suñu cër ce n'est pas ñu nekk ci leneen parce que Sénégal ñëpp ko ñu ñëpp ko bokk donc euh, je pense que inauguration boobu même suñ ko fekkulee ñun suñu cër ce n'est pas de nekk université di fa créer yeneen situation wante waaye université moo xam étudiants yi ñu may dégg ñu fa nekk euh, comme responsable ñu may dégg su leen neexee ñu limal leen ci at bi ñaata responsable APR ñoo dugg université dinañ dugg université te directeur COUD ñu tegee dugg université te suñ la waxee dinañ dugg université dinañ dugg université lu xanaa dem waxtaan ak étudiants yi waxtaan ak étudiants yi parce que dama ne Maodo fu ñu tollu ni tey mhm. taxaw dem moo jot taxaw dem moo jot parce que fu ñu tollu tey nii nguuru Macky Sall dañu bëgg a noot askanu Sénégal def leen ay jàmm parce que tey mënuñu nangu président Macky Sall jël suñu cinquante deux milliards ne dafay defar ay carte d'électeur ay ñitam am seen carte d'électeur ñeneen ñi amuñu carte d'électeur tey heure bu ñuy def émission bi di ko enregistré am na lu toll ci un million six cent mille sénégalais yu nga xam ne ni dañu téye seen carte d'électeur bañ leen ko jox. un million six cent mille. te ministre de l'intérieur rek may dégg. ñoo xam ne ñoo jot seen carte d'identité dañ ko confisqué bañ leen ko jox. confisqué nga wax confiscation confiscation en commençant par primo votant yi mooy xale yi nga xam ne ni mosuñu wote parce que ñooñu ñoom Macky sax la gën a xam ne ni soxlawul sax muy waxtaan ak xale yi parce que xale yi dañ ko dañ ko weddi parce que moom moo fi diggoon xale yi ay xëy xale yi ba tey xëyuñu tey la ñu gën a sonn. tey la ndóol bi gën a metti seen côté. mooy benn non man duma sore ci waxu Macky Sall Macky Sall daal élection yi soretul na joxe carte électeurs yi euh, jël fichier électoral bi moo tax tamit dem ba ñu nekkoon ci mbedd mi parce que tey ginnaaw Macky Sall ak ministre de l'intérieur amul kenn Sénégal ku la mën a wax euh, ku bokk ci fichier bi wala ku bokk ci fichier bi bu ci tegu nag mooy carte électorale bi ginnaaw Macky Sall ak ministre de l'intérieur am amul benn sénégalais bu la mën a wax tey ñaata centre de vote mooy am Sénégal ak ñaata bureau de vote mooy am ak fu centre de vote yi nekk ak fu bureau de vote yi nekk. xëy dafa jot. ah dafa jot lu jot ak jot na. mais campagne bi jotagul dama ne euh, Abdoulaye Wade bu muy organiser élection 2012 mas ngeen ñu dégg ñun te pourtant ñi ngi woon ci opposition bi mas ngeen ñu dégg ñu wax waxu carte d'électeur mosul mosul ñu dégg ñu wax carte d'électeur parce que Abdoulaye Wade daf ko tegoon ci yoon bu ci tegu mooy fichier électoral bi. lan la loi électorale wax loi loi électorale dafa ne dañu nar jël fichier bi jox ko candidat yi quinze jours balaa élection yi wante moom la loi bi di wax depuis indépendance moom la loi yi moom la loi électorale bi di wax ba Sénégal doone Sénégal ba tey moom la loi électorale bi di wax mais Abdoulaye Wade daf ko jëloon fichier bi teg ko ci internet pour ko wax bañ a am coow bañ am mooy lu ñuy woy ci tubaab souci de transparence ndax lépp leer yow nag yow bu ngay faloo 2012 fichier bu la fal mi ngi woon ci internet mooy lu ñuy woyee ci tubaab un acquis démocratique acquis démocratique boobu yow amoo droit indi ko marche arrière soo ko mun lay bàyyi fu mu nekk nga lu mu avancé wante yow nga ne noonu da ngay delluwaat marche arrière ñoo la yow lan ngay nëbb yow déjà yow jël nga yenn candidat yi leen fi ñu dëkku tëj leen ci kaso bi tey yàlla nga lay wan boppam ñeneen ñi nga jël leen exilé leen génn leen ci dëkk bi mel ni bokk ñu ci dëkk bi ñeneen yaa ngi jama xoo doo leen di galgale ci ay parrainage doyul nga ne maintenant da ngay confisquer ay carte d'électeur doyul nga ne dangay def fichier bi da koy galgal doyul nga ne carte électorale bi dama ne lu ëpp tuuru hmm, Sénégal nag lu tax dem ba ñu génn ci mbedd bi ma ànd ci ak Ousmane Sonko mooy fu dëkk bi toll xeex euh, bu ñu nar a xeex du xeexu politicien taxawaay bi taxawaay politicien xeex bi xeexu citoyen la taxawaay bi taxawaayu patriote la ne Sénégalais yi jóg nuñ ko namoon 2000 ba am alternance jàmm ak salaam nuñ ko namoon tamit 2012 ba am ci seconde alternance jàmm ak salaam mais foofu la leen di wooye. mais pourquoi mun mun leen a mun leen a woo Macky Sall comme li ngay wax ni au lieu ngeen di xeex affaire yi leer élection yi am jaar ci yoon comme ni nga ko waxee kenn ku nekk jot carte dem kun gañe nga xam ne gañe nan la c'est mieux je crois. Macky Sall ngeen xam ne li ngeen di xeexee na yi fi leer ngeen war a xeex mais da war a gën ci mbedd yi di déconné. waaw mais Macky président mooy président Sénégal depuis juróom-ñaari at nee moom du woote waxtaan. Macky Sall moo la wax Sall amul kilifa. li nga wax ni mooy lan. Macky Sall amul kilifa. yéen xam ngeen bu baax lu xalif général des Mourides euh, dox ci mbiru Karim Wade xam ngeen lu xalif général des Mourides dox ci mbiru Khalifa Sall balaa muy génn àdduna si di Mokhtar Mbacké xam ngeen bu baax balaa muy génn ci àdduna yéen ñëpp xam ngeen si di Mokhtar Mbacké lu mu dox ci mbiru Karim ak lu mu dox ci mbiru Khalifa Sall Macky Sall gantu ko fii sénégalais boo fi yee këram deux heures matin ne ko xalif général des Mourides dina la woo téléphone ne la salaamaaleykum ngay xalaat di ko gantu xel xalaatu ko Macky Sall la ko fi def def na fi lu fi kenn deful senegal te moom mii jamono Abdoulaye Wade ba ka Abdoulaye wat bëgg yi dugal ci kaso bi jamono yooyu ñun xamuñ ko ñu woon que amoon na juróom-ñetti milliards ci ku nga xam ne nii euh, du ndono bu jóge ci ay waajuram ba ka Abdoulaye Wade bëggoon tëj ci kaso bi parce que Abdoulaye Wade dafa amoon ay information boobaa jamono boobu moom demul Qatar demul wooy ji buuru Qatar dafa daw Touba ci Serigne Baara Serigne Baara yëkkati téléphone am Serigne Baara Mbàkke yëkkati téléphone am woo Abdoulaye Wade ne ko bàyyil doomu jàmbur noonu la ko ab Abdoulaye Wade bàyyee. loolu mooy dëgg bi. tey nag moom Macky Sall moom jàpp nga ni xalifa général des mu Murit ku ko ñaan mu bañ. non amul kilifa Macky Sall amul kilifa Macky Sall su amoon kilifa lu mu def Sénégal lii yëpp du ko def man mii katolik la man toog naa fii bloqué ay permis de construire ñu nga xam ne dañu amoon fii ay suuf Mermoz bëgg tabax ma bloqué ko mbàkke mbàkke jóge tuubaa du turam ñëw ci man jege lool lool lool xalif général des mourides ne ma man dama am entreprise man maay tabax ay immeuble man maa gagné marché yi mais ci loolu rek ci kàddu yooyu rek ma signé permis de construire parce que Sénégal ku nekk ak cër bu la yàlla baaxee man rus naa tey ma nekk maire Mermoz moo cœur ma xam mbàkke mbàkke bi nga xam ne ni kilifa la ci yoonu murit ñëw di ma expliquer dafa gagné marché ma koy gantu ci loolu a fortiori xalif général des des Mourides yow nga nekk président de la république xalif général de Mourides di laaj lu ñàkk fayda mel ni ay jëlal ma kii rek kii suma doom la may ko liberté provisoire nga ci nga ciy xataraayu buuru buuru Qatar musu fi teg tànkam xamul fu Sénégal nekk ci àdduna bi yëkkati téléphone am woo la wax ak yow yónnee la roplaan dugal ci procureur am nga génn Karim Wade loolu mooy dëgg parce que yow amoo kilifa yow sa kilifa mooy xaalis ku mel noonu nag kooku dañ koy kooku soxlu ñu toog ak moom kooku dañ ko fiy jëlee. mais comment ça dañ ko fiy jëlee dañ ko fiy jëlee dama ne voie normale boobu nag moom lay bañ a dégg dina ko dégg. voie normal bi dina ko dégg baa ñu yëngal ba gaal gi dina ko dégg baa ñu yëngal gaal gi amul ma dem te ñëw fii ragal dëkku fi. lépp dañ koy teg ci li nga wax ne ay menace la yéen dama ne yéen yaa ngi des ci wax ji ñun bàyyi nañ wax ñun fu mu ngi ci jëf bi ñu ngi xool nu ñuy dajalee suñu ñaari dërëm yi ak suñu ñaari orange mu mat rek accord léegi dana ci dikkale mbokk ma fàttale ñu ngi ci euh, jano bi ak euh, Barthélémy Dias Barthélémy fan yi sa position ba léegi changé wul ah ci ci Khalifa Sall mais est ce que yaakaar yaakaaruloo ne bala ñoo dem ci wàllu xam naa ne danañ ko bàyyeeg duñ ko bàyyi mu nekk candidat est-ce que xalifa Sall taxawu Sénégal effrité wul est que gars yi infiltré wul leen pour corrompre ñenn ñi transhumance yi est-ce que loolu du wàññi seen doole. ku amul fulla boppam ku amul fayda boppam su ko neexee dem na ko yàlla may xolu muñ xalifa Sall day bokk Serigne Maodo Khalifa Sall amul benn mbindeef bu ko mën a tere mu bokk ci élection présidentielle. ku 24 février 2019 munu ko. gis nga Cour tey ñu ngi enregistré émission bi tey mooy jeudi. oui le tey cour suprême heure bu ñu enregistré émission bi. ñu ngi waxtaan ñu ngi waxtaan. ba léegi ni ñu ngi waxtaan. dama ne su leen neexee sax nañu nañu gàttal waxtaan bi suñu condamné woon xalifa Sall ñu teg leen ci mbëlle suñu newu ci ñun xam nañ bu baax lu ñuy dox dama ne 19 janvier 2019 na ko sénégalais yépp déggee noonu le 19 janvier 2019 waxuma cour suprême conseil con constitutionnel moom la yoon may sañ-sañ mu wax kanay bokk ci élection yi am déet te kooku ci kaw mu gestu ku nekk dossier bu mu déposé ci greffe conseil constitutionnel ñun dossier bu ñu déposé ci euh, candidature du Khalifa Sall amul benn mbindeef bu fi bu ci mën a teggi document amul parce que benn këyit rek dañuy gestu pour xool est-ce que Khalifa dina bokk am déet parce que ay côté parrainage moom kooku côté côté boobu su leen neexi sax ñu invalider parrain yépp suba ñu indiwaat leen ay xool yeneen soixante-six mille parrain dañu am parrain ba doyal teg ko nag ci yoon ci ñoom rek la des casier judiciaire bu ñu leen dugal ci dossier bi casier judiciaire boobu nu ko yoon bi santaane noonu lañ ko defee que daanaka casier judiciaire boobu amagul ñetti weer te amul benn condamnation te fii ak le 19 janvier 2019 su ma baat ci kaw te Macky Sall lañ may dégg munul muusuwaane ba wut yoon ba dugal condamnation ci casier judiciaire du Khalifa Sall munul nekk. mais yow Barth yow seetaguloo wecc ba noppi di wax lii est-ce que yow gars yi bàyyi nañ la définitivement. parce que il que toujours am na ay dates yu ñu joxe ci kanam pour reconvaincre la wax am déet. Serigne Maodo nee naa la man lu dul yàlla faalewu ma la dunduma la xanaa dégg lu la wax loolu yàgg naa la ko fii su FM man ñii yëpp ñàkk ñii ñëpp yàkkamtiwu ma leen yàkkamtiwu ma wante nag nee naa leen. lépp lu ngeen di ma teg ci mettitu àdduna maa ngi koy muñ di ci ànd ak ngor seen bos su ñëwee dimbali leen ma rek te yàlla tax bu kenn yuuxu dinaa dëkk seen digg yéen ña benn benn parce que da ngeen yebaate comment parce que dañ leen dënk réew mm-hmm. ngeen noro dawal mën yërëmande nga ñi dawal maa tey dinaa leen wane ni que maa tey tubéy la te maa ci gën a jekk dama leen yàkkamtiwul rek mais est-ce que yaa ngi ne barki dama génne ci kaso man dama dundul kaso kaso mooy ku def ñaaw ñaawteef mooy dem kaso man deew ma kaso man dañ ma jàpp otage. ah bon kon dañ laa tooñ tëj la dugale ci kaso bi. man su ma jàpp man tey su ma àndoon ak Macky Sall ku may ku may woo tribunal tey su ma àndoon ak Macky ban ban ban juge ma may woo fi tribunal kenn du ma woo. ah kenn du ma woo tribunal ku may woo. yow dañ fi woo directeur COUD directeur port dañ ko fi woo directeur poste dañ ko fi woo. Euh, mbiru Prodac bi dafa am kuñ ñu fi woo. Prodac bu ñoom ma may Niang. waaw dafa am ku ñu non. waaye pour le moment non mais OFNAC da nga def Serigne Maodo xam nga yow jullit nga man may catholique. oui. su sa kurus jàpp ci suma bos. ñuy ñaan nañu yàlla may fekkee dal ak dal bu ànd ak wér ak wérle yàkkamtiwuma leen. dinaa rëq seen digg ñoom ñëpp yàkkamtiwuma leen mais non non li ma jaaxal parce que dama la ne déglu ma Serigne Maodo. ñoom ñoo woote Sénégal fayonto. comment ça nag Macky Sall la fayontal Euh, sëñ Maodo xam nga Sénégalais ñu ngi ñuy déglu. waaw bu baax nañu góorgóorlu ba émission bi ku nekk am looy jàng. puisque émission bi dama lay ñaax nga archivé ko c'est très bien suivi waaw non. bés bu ñuy toog yàlla nag mooy xam kuy toog dama la ne Macky Sall su amee ay mbokk suma baat ci kaw na bàyyi muy def kilifa du foo kilifa du foo kilifa du foo kilifa nag du passé nga nekk président de la république dangay ngay foo. kilifa tamit du caaxaan te dañuy caaxaan. mais explique parce que. caaxaan dañuy caaxaan parce que munoo jël réew nga toog ci élection. nga toog ne tey da ngay indi beneen xeetu démocratie benn démocratie rek moo mën a am mooy démocratie bu nga xam ne ni moo tax nga falu yow bu ngay dem élection Abdoulaye wat dafa joxe carte électeur yi yow mii Abdoulaye Wade jekk woon na la mënoon na la jël rappelé ci kaso bi te dara du ko ci fekk defu ko. ba ngay daw Touba dem dem seeti Serigne Baara lu tax nga demoon Touba demoo demoon demoo woon Touba dem ziyaara ji Serigne Baara da nga demoon Touba demen demoon ñaani ji njekk sëriñ Baara parce que dañ la naroon tëj ci kaso bi te xamoon nga loo def ñun nag jamono yooyu nag dañu nekkoon ci opposition xamuñu woon que da nga yoroon ñett juróom-ñetti milliards. ah bon ah waaw parce que Macky fu muy jaar ba am juróom-ñetti milliards fu mu ko liggéeyee du ndono fan fan la ko liggéeyee. nit ki nag soo amee yenn alal yi liggéeyoo ko du ndono mais Serigne Maodo da nga ko sàcc amul leneen gis nga fii ñaari yëf rek am ndono liggéey ba sàcc. pour mag yi dafa jël alal si. Euh, Serigne Maodo <laughs> yow yaa ngi nii. Mhm. weer bi su dee daanaka euh, amul lenn lu nga xam ne da nga koy namm ci weer bu dee yoo xam nga su baax fu may waxee waaw dama ne. Mhm. yow. ñu fi liggéey Sud FM ñëpp ak ñu ñuy déglu ñëpp amul kenn Sénégal ku fi namm weer bu dee waaw parce que trente jours ba trente jours dafa gaaw locaas taxaw courant taxaw ndox taxaw euh, dund bi taxaw scolarité bi taxaw ordonnance bi taxaw waaw yow yow 2000 da nga daan loué néeg premier gouvernement Abdoulaye Wade 2000 sax bokkoo ci ñu teg ci 12 ans nga ne yow da ngaa yor milliard yoroo registre de commerce yoroo NINEA demoo dikkoo fonctionnaire nga du ndono ci ndey du ndono ci baay du ñàkk soo soo ko liggéeyulee da nga ko sàcc loolu mooy dëgg bi su leen neexee nag ngeen woo ma tribunal su ma yoon mais parce que su ngeen ma woowee tamit tribunal ma waxaat leen lu ma wax rek da ko sàcc sàcc nag ku gis sàcc rek yuuxu sàcc. mais yow Bart Bart doo doo doyal ci tribunal. ñu waaye dama la ne tribunal man dama bëgg nga déglu ma. Mhm. saay bu may dem tribunal maa ngi fay taxawal quinze millions de sénégalais naa fekki rek ñu tuddul gi seen bopp naa ki rek saay bu may dugg kaso maa ngi tëddal kaso bi quinze millions de sénégalais naa fekki rek ñu tuddul gi seen bopp man dinaa rus lool am gàcce lool ñu ne ah Barthélémy mi ngi ci kaso bi lu tax mu dem ci kaso bi ñu ne Barthélémy moo dëpp kees bi moo jaay suuf bi moo jël jabaru jàmbur moo def lii moo moo doon xeex moo def lii wante ay baxta wax lu ñëpp di lam lamee ci suuf ba baatu wax ko ci kaw mais man loolu mooy suma mission man loolu mooy suma mission. d'accord loolu mooy sa mission mais Barthélemy ba léegi question bi moom mooy euh, ci taxawu Sénégal maa ngi ñëw léegi ci Khalifa Sall ah ku mel ne Moussa Sy dem na je est-ce que amul ñeneen ñoo xam ne ñu ngi leen di jëm mais mais léegi est-ce que doole ji man ba léegi man loolu mooy sans problème. mais dama ne ngeen bëgg nekk candidature boo candidat boo xam ne bi Sénégal ngeen di xëccoo. mi. dinañ candidat ñoom ñoo xam lu tax bëgguñu ñu candidat. ñoom xam nañ ko kat appui nañ ba pare. mais kan moo la wax ne la ñoom dañoo ragal euh, Khalifa Sall. mais soo ragalulee Khalifa Sall doo def lu nga def. Ah, ñu ne Khalifa dafa jël alal jàmbur. lu mu jël li nga doon jiñ Macky Sall léegi. Khalifa lu mu jël lu mu jël. ah <laughs> loolu nit ki xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga Serigne Maodo. émission bi du ci ville de Dakar. oui xam nga état nee naa la sànq nee naa la mag du foo kilifa du caaxaan. lu nga xam ne ni ñu ngi koy def ñëpp xam ko ñu ngi koy def depuis plus de vingt cinq ans ñëpp xam ko kooku mënoo nëbbatu di ko def waaw. xam nga ñoom lu ñuy topp xalifa musuñu wax ne ni que xaalis bi demul ci askan wi ah. musuñu ko wax musuñu ko wax ci procès bi yëpp musuñu wax ne ni que xaalis bi demul ci askan wi te man dafa am benn question bu ma posé ci dëkk bi ba tey kenn tontuwuma mooy ban nee naa ville de dacar toog na juróomi weer amul budget mooy bu ñuy dugal acte trois de la décentralisation ville de Dakar amul budget waa ville bu amul budget kooku nooy fay ay facture même su nekkee ay fausse facture juróomi weer ñuy fay salaire rek ak facture yooyu salaire ñu koy fay c'est normal parce que dépense obligatoire la da nga koy fay wante nga ne waaw mais facture yi ay fausse facture la woon ñu ne la waaw mais d'accord nañu nga ne ay fausse la woon waaw d'accord waaye yow maintenant noo mënee fayee ay fausses factures te amoo budget nga koy nga koy traité comme dépense obligatoire comme comme nga koy traité comme les salaires moo tax ñu ne suñu suñu toogee tey man dama décidé Barthélémy Diaz à partir de lu ma dégg mu génn ci gémmiñu Souleymane Teliko bu jiite UMS mhm. ma dégg ku mel ni Pape Alé Niang di journaliste chroniqueur. taxaw wax la malaise qu'il y a la magistrature. man suma bopp ma am ay information yu jóge ci ay nit yu crédible ma ne man du ma fi waxati ci waxu magistrat yi du ma fi xasati magistrat yi du ma fi saagati magistrat yi wante am na benn brochette de magistrat brochette laa wax mhm. parce que Ibrahima dem juge bi bu muy démissionné wax na justice sénégalaise daanaka ci gàttal juróom ba juróom benn juróom ñaari magistrat ñoom ñooy yàq seen der bugguloon lim ay tur man duma lim tur wante ñépp xam nañ ko procureur de la république président moo koy nommé doyen des juges d'instruction président moo koy nommé président du tribunal de grande instance de Dakar président moo koy nommé président de la cour d'appel président moo koy nommé procureur général près la cour d'appel président mooy nommé président de la cour suprême président mooy nommé avocat général même chose waaw mais ñooñu man waxuma dara man nee naa leen dinañ toog dinañ egsi képp ku nga xam ne da nga wàccee yoon dinañ la teg ay daan parce que il faut que Sénégal suba Khalifa Sall su nekkee président de la République Khalifa Sall amul droit jël téléphone am woo ay magistrat ne leen na ngeen tëj Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko sondage yi nee nañu moom moo lay remplacer Khalifa Sall moomul Sénégal su ko Ousmane Sonko noo remplacer ñu xam ne ne Ousmane Sonko mooy koy remplacer c'est tout su buggulee Ousmane Sonko remplacer ko na liggéey ba nga xam ne ni Sénégal lay joxaat ko beneen mandat. mais yow li nga lim léegi nii ci nomination yi nga xam ne chef de l'état rek moo am sañ-sañu fi la ko Macky réew mi la kooku kay Macky def ko. mais la ko fekk mais daf ko hérité. xam nga charte réew mi noonu lay tëddee kay. yéen bu ngeen bu ngeen faloo ngeen changé wax naa ko nee cent douze bu code pénal nee na bépp magistrat bépp policier bépp gendarme buy topp député wala buy topp ministre bu am immunité. Mhm. te tegoo ko ci yoon. Mhm. lu la ci fekk yaa ko teg sa bopp. gis ngeen tey nii ñu ngi toog di wax waxu cour suprême ñu ne ci waxu cour suprême ñu wax ay waxu rabat d'arrêt cour suprême xam nga lu cour d'appel def cour d'appel nee nañu ñoom dañuy confirmer mhm. daan bu ñu daan Khalifa Sall ci première instance mhm. wante ñoom nee nañu bu ñuy déglu Khalifa Sall ci police PV d'enquête yooyu yëpp képp ku nga xam ne ni mas nga dem police dañ lay déglu dañ lay déglu ci kaw procès verbal mooy mhm. PV d'enquête nee na loolu yëpp da koy éliminer da kay seppi sànni ko ci marit bi baaxul parce que cour de justice de la CEDEAO dafa dafa daan Sénégal nekko ko yow bu ngay jàpp xalifa di déglu xalifa ci police bi dafa naroon am assistance avocat am kon da ngeen jalgati ay àq ak ay yelleefu xalifa Sall kon lépp lu ngeen def police dara baaxu ci ñu ne ah waa d'accord comme nag mbir bi noonu la tëddee kon lépp lu ñu def police nañ ko seppi sànni ko ci ci mbalit bi waaw mais loolu noo ko mënee def nga ne waaw wante procureur de la république këyit bu mu bind pour dugal xalifa Sall pour dëkkaloo xalifa Sall fu mu dëkkul këyit boobu procureur de la république dafa sukkandiku ci PV d'enquête bu ñu defoon ci police bi kon yow soo disqualifié daanaka ngay élimine PV enquête police automatiquement da ngay éliminer tamit lu ñuy woy ci tubaab le réquisitoire introductif du procureur de la république hmm. balaa may dee procureur bi taxaw ne waa mais man suma réquisitoire dama sukkandiku ci rapport inspection général d'État yow yaa bind ñëpp gis ñëpp gis nga ne da ngaa sur les procès verbaux d'enquête à la police kon Demba Kandji su éliminer procès verbaux enquête bi ci police bi daanaka ci PV yooyu le procureur sukkandiku pour bind lu ñuy woy son réquisitoire donc PV enquête police bi su baaxulee réquisitoire procureur tamit baaxul d' accord comme mais ma ñëw bu gën a bu gën a neex. oui ayca. article 167 bu code de procédure pénale nee na bépp magistrat bu nga xam ne ni di nga gëstu ay këyit yu nga xam ne ni baaxutul wala ay témoignages yu nga xam ne ni baaxutul dañ ko disqualifié daanaka de documents frappés de nullité nga sukkandiku ci loolu pour topp nit wala pour daan nit yow danga def lu ñuy woowee forfaiture daanaka yow yoon dafa nar a dal sa kaw. maintenant ñun suba bu ñu kenn mere ñun ñu ngi waxte waxantu wuñu waxantu wuñu wa ah. parce que Sénégal il faut mu soppeeku ay nit taxaw fii ñu leen di jox ay enveloppe ñu leen di jox ay terrain ñuy ñàkk fayda sa ñàkk fayda bopp taxaw fii nag suba dëkk bi tàkk ñu ne waaw wante ñii daal nañ leen nañ leen ormal parce que ñii daanaka ay ay magistrat la ñu non non non non yi ñu ngi biir UMS magistrat yi maintenant ñu ngi commencé di leen di ràññee ñee je le répète ce sont des magistrats. c'est des magistrats. voilà d'accord ma koy tax ñu nekk fii bu ma déggee si gars mais mais mais Barth man am na lu ma la bëggoon laaj parce que bul fàttali ne maire nga ci maire moo Sacré-Cœur et tout nan nan la sa maire bi di fonctionner comment votre maire fonctionne. muñ ak moytu. c'est-à-dire. muñ ak moytu ça veut dire que tey dem lay jox benn exemple bu ndaw. oui askanu Sacré-Cœur 3 dañu bëgg ñu déguerpir parce que mbedd yi dafa fees ak ay parking oto. ak ay yu mel noonu man attaque lu ci ak lu ci tegu mi ngi nii maa ngi bind préfet di bind sous préfet yónnee ma ay policier ndax ma déguerpi ñu bañ. pourquoi pourquoi ñu bañ xanaa. mais parce que ànduma ak ñoom. ah loolu moo am sous préfet almadi may dégg. da nga bëgg a déguerpir jaaykat yi xaj xaj loolu naa mën naa génne lettre yu ma bind sous yëpp mën naa bind lettre yu ma bind préfet yëpp teg ko suma page Facebook ñëpp gis. ñu lànk dama ne du ñu am mukk policier pour jàppale ma ci suma liggéey. wante saay bu ma sëkkatee am nañ policier pour ñu jàpp ma waaw. li nga li nga bëgg wax Bart moom mooy bu fekkee da nga wax ne. wala dama ne tey suma commune bii. nga defar sa commune ñu dëgër piir ñu bañ. ñu bañ te boo waxee ñu jàpp la. loolu moo am ci dëkk bi xanaa du démb rek lañ ci jóge ñu door ma ay lacrymogène tey saay bu ma bindee ñu may këyitloo na ma tey amuñu policier suba policier dañu dañu dañu sibiru ginnaaw suba ñu ne ma policier yi amuñu essence man may joxe essence joxe PGA may joxe lépp man dama lay joxe benn exemple rek benn exemple rek laa leen di jox terrain boulangerie jaune bii tey fu Auchan nekk. lan ngeen ci musul dégg. coow lu bari. xeetu xeex bu nekk ñu may xeex ba li di am dëkk fi Auchan bi man daal lu ma mën a wax daal mooy fas yéene wu ma nëpp ci mairie Mermoz moo cœur lu may ñaan yàlla mooy na ma yàlla may kattan ma dem feneen dafi leneen. mais da jàpp ne kon yow sa mairie bi fonctionnement bi kilifa yi dañ laa xoj. wante maa ngi ànd ak yàlla. moo tax ma ne maa ngi sant yàlla wante tey mënoon na gën a sori fii ci kaw kilifa di nangu di ànd ak yow. tey suuf bu nekk fii yéen fan ngeen nekk du cité kër góor gi. waaw fii mairie bi amu fi benn mètre carré. te fii tey mairie bi cité gi mënoo tabax cité bu mel nii te mairie bi du ci am suuf lu mu bon bon bon mairie xanaa jardin yi xanaa suuf yu nga xam ne foofu la ñuy teg jumaa yi jàkka ak église yi suuf yu nga xam ne dinañ fa teg ay bibliothèque municipale wala yooyu sax nga bàyyil ko mairie bi. lépp lañu jël jaay ko seen biir tayle ko tong tong ko seen eh, ñu tong tonge ko seen biir loolu moo am man may meeru gox gi man fii damay loué fii damay loué man dama dëkk Mermoz Sacré-Cœur maay meer bi aw ma fi suuf su fi amee nit bu fi gën a un mètre carré ci suma tur wala ba ma nekkee maire ba tey nit génn fi un mètre carré bi nga xam ne ni mi ngi suma turu pap suma turu yaay wala suma turu jabar wala suma ay turu doom na génn yëkkati loxoom amul. en tant en tant que ñu nga xam ne ni dëkkuñu fi judduwuñu fi kenn xamul fu ñu jóge ñoo fi aaki moom suuf si yépp balaa may dee ngay gis ñu nga xam ne ñu ngi wut ay suuf ay pieds dans l'eau pieds comme ni ma ko doon waxee benn waaye yow balaa ngay wut pieds dans xanaa sax nga mën a fay mënoo sax fay di wut pieds dans l'eau su ñi doon lab sa kanam sax mënoo ko jàppale. d'accord ñoo fi nekk. d'accord Barthélémy Dias ba léegi ci jano bi fii ci 98 point 5 ci Sud FM alors. ci wàllu ci wàllu économie réew mi bërki Dembo Ndiaye gis nga Macky Sall dem na Paris ci seen rencontre bi nekk foofule 7340 euh, et quelque en tout cas 7000 et quelques milliards ñoom lañ fa jëlee ñu jàpp ne fi mu toll nii financement yu bëree bari Sénégal mën naa ko bon parce que dañuy jaar ci digg bi rek après nga def sa commentaire noo ko déggee paradoxalement nguur gi dafa bari ay bor. école privée yi de l'autre côté fay ñu ko parce que xam naa ne su ma la si jotul fa nga jëm mais milliards yi dugg na. ban jàngat nga ca am est-ce que milliards yooyu ñu nu jox yaakaar nga ni Macky Sall ak guvernement mën nañ ci suqali réew mi pourtant baax na de ay xaalis la de. waaw sëñ Maodo xam suñuy waxtaan nañu bàyyi xel ci askan bu ñuy déglu. oui ci askan bi dafa bëri ñu nga xam ne nii euh, seen xam-xam peut-être demeewul noonu. parce que lu ñuy wax nii mooy lu ñu wee ci tubaab macroéconomie. oui donc euh, xaw ma sax nu ma koy faram-fàccee ci. Mhm. ci wolof wante ci gàttal. Mhm. nañu nañ ko faram-fàccee ndax sénégalais yëpp mën ko mën ko xam voilà sept mille milliards ak tof lu toftalu ci àdduna bi oui cent quatre-vingt-seize dëkk moo fi am mhm. waaw ci cent quatre dëkk yooyu nee nañu Sénégal mooy vingt-sixième dëkk bu gën a ndóol ci dëkk yi daanaka le Sénégal suñ koy suñ koy classé Mhm. mooy cent soixante seizième pays su cent quatre vingt non mooy cent soixante dixième pays su cent quatre vingt seize pays. Mhm. le pays le plus pauvre au monde. waaw yow balaa may dee ngay wax woote ay taux de croissance ngay woote ay PIB ngay woote waaw yu mel noonu xam nga classement. pays les plus pauvres dafa am ci du ñuy sukkandiku pour def ay classement pays les plus pauvres mhm. dañuy wax dañuy njëkk a xool la monnaie mais ñun suñu monnaie daanaka du am benn incidence parce que ñun suñu monnaie euro moo ko garantir donc ñun on est adossé à l'euro beneen bi ñu ne bu ci tegu mooy le revenu par habitant waaw revenu par habitant yow naka nga waxee naka nga mën a gëmloo sa askan que yaa ngi avancé te yow gaañi seen poche avancé wul seen poche gënul duuf seen poche yi gën a di bëtt di gën a bëtt di gën a bëtt. am na Macky wàññi na impôts yi ah, yi noonu dëgg et cetera. waaw xanaa kon ñoo de yaa koy yëg. ah déedéet man kenn waxuma ko sonn nañ lool lool lool lool man de waxuma ko xale yi de ñoo ko tënk nee nañu xel dëkk bi dafa yi xam nga su dëkk bi mag yi daanaka ku nekk xam nga daal fu ñuy waxee bu ci tegu ñu ne dañuy xool le PIB du pays. PIB bi tamit avancé wul. lu tax PIB avant bu tax PIB bi avancé. produit intérieur brut waaw. parce que tey lan mooy richesse su Sénégal tey est-ce que béykat yi ñu ngi avancé non est-ce que nappkat yi ñu ngi avancé non est-ce que sàmmkat yi ñu ngi avancé non wante est-ce que Sonatel Orange mi ngi avancé waaw est-ce que BICIS mi ngi avancé waaw est-ce que AXA assurance mi ngi avancé waaw waaw mais ñu ma lim ñooñu léegi nii sénégalais yi ñoo leen moom wala ay tubaaba leen moom tubaab yi ñoo ko moom donc daanaka le secteur tertiaire mënul développer dëkk bu mel ni Sénégal il y a pas d'industrie dans ce pays il n'y aucune promotion de l'économie locale daanaka tey soo taxawoon tey duma fi tudd ay tur wante sénégalais dinañ xam fu may waxee parce que tey am na ay sénégalais yu fi nekk seen tur la ñuy gën a dëkk lu ñuy gën a dégg man tey soo déggee Barthélemy Dias amul benn xel buy dem ci ay business parce que duma ma man ku dégg Barthélemy Dias sa ah xel dem ci politique wante soo déggee tey damay joxe tur rek su nga dégg tey ñu ne ah euh, Ahmed Amar ñu ne ah kii de mooy jaay affaire yi euh, NMA hmm. ñu ne Babacar Sedima ñu ne ah waaw kooku dee waaw mais ñooñu est-ce que état bi mu ngi leen di jàppale est-ce que état bi mu ngi leen di pouse daanaka le patronat sénégalais lan la leen état bi defaral est-ce que am nañ ay exonération fiscale est-ce que am nañ tey ay ay ay ay ay cest ay mécanismes yu nga xam ne nii état bi mu ngi def la promotion de l'économie locale l'économie sénégalaise no moo tax mën na la est-ce que béykat yi ñu ngi avancer no nappkat yi non sàmmkat yi non enseignants yi no mais su ma la waxee est-ce que Orange Sonatel at bu nekk est-ce que bénéfice day yokku wala day wàññeeku day yokku BICIS day yokku Société général day yokku ak AXA assurance day yokku te ñoo société yooyu yëpp du ay Sénégalais ñoo leen moom donc moo tax mën a la pour revenir à la question tey d'abord nga dem di jëli ay bor bor yooyu ñu ngay jël joxuñu la ko parce que da nga da nga neex làmmiñ non joxuñu la ko parce que da nga woon tubaab yi lu ñu musul gis non dañ la ko jox parce que dafa am lu ñu gis Sénégal lan la ñu gis Sénégal mooy pétrole ak gaz ñu nekkoon Sénégal même suñ leen joxoon xaalis bii wala ñu dugal xaalis bii biir Sénégal normalement Sénégal fii ak temps de at am na lu ñuy fay suñu xaalis ñun mais xaalis boobu bu ñu la koy lebal ci ban intérêt ci ban taux d'intérêt dañ la ko lebal parce que dëkk bu nga xam ne nii dañ lay lebal ay 7000 milliards di la ko tegal à des taux d'intérêt à deux chiffres kooku ce n'est pas de l'économie c'est de l'esclavage c'est de la dépendance donc amoo lenn lu nga xam ne ni mën nga toog fi di ko ndamoo pour yow dañoo dépendre ci bor la dañ koy fay sunu ndodd après dama ne Macky Sall su demoon ñu lebal ko xaalis su demoon États-Unis ñu ko xaalis parce que da nga ñëw nga tayle sa réew ne pétrole la ngi nii gaz yi ngi nii tubaab yi tubaab yi xaalis dañ ko nàmp xam nga ñun ñi nañuy doon ay ñun dañuy nekk ay xale yu ndaw nga ñëw di laaj xaalis wala di foye xaalis ñu dóor la ne la eh xale norul bëgg xaalis wala xale du du du laaj xaalis wala xaalis xale du ñaan xaalis tubaab yi dañ leen di jàngal xaalis dañuy nekk ay xale yu ndaw ñu ubbi leen ay compte ba ñuy juddu ñu du ubbi leen ay compte di ci dugal xaalis ñuy nekk ay xale yu ndaw ñu leen grande vacances ñetti weer la de benn weer bi da ngay dem liggéey ci McDonald bi soo amee tuuti wàccit nga dugal ko fii man ma yokk la ci tuuti xaalis beneen weer bi nga dem plage beneen weer bi nga dem jàngi parce que tubaab bi dañ leen noonu lañ leen di yare donc lu ma bëgg a wax par par loolu mooy en synthèse que Macky Sall le coup est déjà parti d'une façon ou d'une autre man républicain la nangul naa Macky Sall que am na sañ-sañ dem wuti xaalis parce que moom mooy définir la politique de la nation de par la constitution nangul naa ko ko wante xaalis boobu lenn laa ci bëgg a yokk soo ko naree indi Sénégal pour di financer ay lekkukaay yi parce que train express régional lekkukaay la. TER bi TER bi lekkukaay la. waxuma ko amul solo. d' oh, accord dama ne lekkukaay la no parce que chinois yi. oui waxoon nañ la que mënoon nañ ko tabax ci moins de trois cent milliards. dégg nañ fi Ousmane Sonko ne dépassé na mille milliards ñu nekk di di werante ak Ousmane Sonko ne non c' est six milliards mais yéen au début c' était milliards au début c' milliards. dafa yokku rek tuuti. non yokkul danaa la expliquer avenant. Mhm. avenant mooy lan yow tey chaque jour yaa ngi joxe sa kër 1000 francs dépense tey soxna si ñëw ne la ah suukar bi yokku na wala ceeb bi yokku na nga ne waaw naa ci yokk 200 francs wante dépense bi munul pa munul ko munul jógee 1000 francs dem 2000 francs kon boobaa Serigne Maodo nga soxna si ne ko ay eh, kaay toogal lu xew loolu mooy avenant yow avenant daanaka bu ngay commencer. Mhm. di projeté di financé di financé euh, mbir bi yow lii nga lii nga projeté woon dinaa ci dugal trois cent et quelques milliards yow naka nga mën a joge trois cent milliards jaar six cent milliards mais ay xeetu dóor marto la centre francophonie Abdou Diouf cinquante six milliards une fois de plus lekkukaay la building administratif joxe naa fi exemple nee naa siège Sonatel Orange ci ci ci fii ci VDN bi du réflexion dañ ko tabax construction bu bees pour c'est un immeuble intelligent waa Sonatel bu ñu koy inauguré su ma jumulee ñu nekk seen immeuble bi euh, mu ngi leen di dikkee douze milliards yow immeuble bu nga xam ne ni am waxuñu la nga fondation waxuñu la lépp ngi taxaw dañ la wax nga réfectionné yow nga débrouillé wu ba immeuble bi noonu coûté xaw ma ay ñaata milliards loolu su nekkul ay xeetu dóor marto lan la balaa may dee ñu ne le port minéralier de Sendou ak yeneen ak yeneen yu ci tegu moo tax ma ne su président Macky Sall noonu jël xaalis bi. tabax ci ay hôpital tabax ci ay université jàppale béykat yi mécaniser l'agriculture jàppale ci nappkat yi sàmmkat yi def en sorte que xale yu nga xam ne ni tey mënuñu dem jàngi parce que état du Sénégal il est incapable de payer seize milliards aux instituts de formation privée man xaalis bi dugg ci yu mel noonu man d'accord naa d'accord na mais soo noree nekk fii di nekk di financer ay lekkukaay. loolu wax dëgg yàlla yaa ngi yaa ngi yaa ngi tooñ. parce que ñun juruñu suñu ay doom. pour ñoom mën a jur tamit suñu ay sët pour ñoom ñu nekk di dund seen àdduna di liggéey pour fay ay bor. d' accord Barthélemy est-ce que am ngeen c' est normal am ngeen yaakaar parce que kuy dem ci xeex da ngay am yaakaar mais opposition bi ni mu nekkee ni mu demee à rang dispersé disloqué même à la limite est-ce que yaakaar ngeen ne mën ngeen a gagné Macky Sall. lu am solo Serigne Maodo. Hmm. sénégalais ñoom ñooy décider kan mooy. diriger le Sénégal deux mille dix neuf deux mille vingt quatre. oui mais seen ay ay. man Seydou Maodo man awma fixation su jëlee fii Macky Sall. ah bon non. Ah non lu tax Macky Sall sénégalais la awma ci fixation wante am naa fixation ci Macky Sall bu nga xam ne ni moom la constitution ak moom la loi yi nga xam ne ni ñoo nekk tey en vigueur au Sénégal jox ko moom sañ-sañ pour muy organiser élection parce que ministre de l'intérieur il n'organise rien du tout le ministre de l'intérieur il est élu par personne. il e nommé par le chef de l'État kon c'est le chef de l'État qui organise les élections loolu mooy dëgg non ma ñëw rek s'il vous plaît. kon man man kay yow rek laay déglu parce que bëgg Sénégalais yi xam mooy nañu organiser élection buy jaar yoon parce que gis nga su jaaree yoon xuloo du am xeex du am saaga du am kan moo nar a joxe carte d'électeur du baax Diaz kan moo nar jël fichier électoral bi teg ko fu mu nekkoon mooy internet du Barthélémy Diaz kan moo noro dalal xelu askan wi ak acteurs yi ci la carte électorale du Barthélémy Diaz kon ku nga xam ne nii moom la yàlla may ci quinze millions d'habitants yi moom moo nar am responsabilité def en sorte que sénégalais yi mën a jot seen carte d'électeur fichier électoral bi ba mën a nekk accessible en ligne carte électorale bi leer ci bopp ñëpp kooku mooy le président Macky Sall te président Macky Sall ci jamono yu ñuy wax ak génn nii nekkul ci tànk yooyu loolu mooy dëgg mi ngi ci tànk saboté élection yi te lu koy firndeel mooy kàddu yu fi Aly Ngouille Ndiaye di ministre de l'intérieur yëkkati woon nekk moom dina def kéntalaay kàttanam pour que candidat am gagné c'est une insulte à la démocratie sénégalaise yow waxoo dinaa def suma kéntalaay kàttan pour organiser des élections claires transparentes démocratiques et équitables mais wax na loolu non waxu ko après wax na ko. wolof Njaay nee na ku wax feeñ. lu mu njëkk a wax. xam nga wax comme balu fetal la. su demee rek dem na. ok mais baax est-ce que ci législative yi lu mel ni waxu leen ko woon ne gars yi dañoo sàcc dakaar ban gañe leen c'est vrai que am ngeen doole lool Dakar loolu kenn incontestablement nit ñi bëgg nañ leen am ngeen fi doole mais gars yi fexe nañ ba wër leen domba nous sommes en politique. waaw euh, sëñ Maodo. xam nga bu ñuy def lu ñuy def. xam nga ku xeex tuur ci tam gis ay mbokkam ñàkk ci seen ay bakken moom ci boppam mu dem ba dugg kaso pour moom Sénégal am na fu mu paase am na lu nga xam ne kenn du ko defee ci Sénégal mais ku ñu waxoon tey Sénégal dinañ dem ba di sàcc élection ak ay ordre de mission te état dina génn trois heures du matin di joxe ay résultats du la gëm parce que pour ñun paase nañ foofu. yow yow législative yi à Dakar dañu joxe ay. Macky Sall mu ngi may déglu il sait qu'il n'a pas gagné à Dakar il sait qu'il a volé à Dakar il le sait parce que loolu la loolu mooy dëgg. ils ont mais, volé l'élection à Dakar les comment... élections législatives ont été volées par l'APR à Dakar gis nga mooy gën a trois heures du matin gis nit ñu baax yëpp trois heures du matin ñu ngi tëdd seen kër yi nelaw nit ñu baax yëpp sàcc yi rek ñooy nekk ci bi mais yow yow ma non da ngay déglu Serigne Maodo. oui maa ngi lay gis nga benn yoon nga ñuy dóor marto man Macky Sall du ma dóorati marto su ma la ko waxee takku téere moo tax ma def lu ma def dem ba ànd ak Sonko Serigne Maodo su ma xam-xam mën na bañ a sori ci lu bëri wante kenn du ma jàngal xeexu politique. loolu rek laa mën su amoon tey université fu ñuy jàng xeex xeexu politique man ma am fa xoolal ma am fa doctorat. je ne fais que ça je ne sais que ça c'est la stratégie politique nee naa leen Macky Sall dina ko teg ci yoon ba ñu teg ko ci yoon ñun xam nañ xam nañ bu baax a baax baax lu ñuy def xulawuñu ci xeexuñu ci dinañ bokk ci élection yi incha allah carte électeur yi dina ko teg ci yoon. su ngeen bokkul nag. Euh, Serigne Maodo xam nga wolof. Ndiaye nee na mais probabilité la. Maodo wolof Ndiaye nee na yàq gën a yomb a defar xanaa déggul lox dina ko teg ci yoon dina ko teg ci yoon yow foo nekkoon 2012. bu ñu fiy xeex contre Ablaye Wade yaa ngi ci woon ci dëkk bi du noonu. ñun gumbuñu tëxuñu handicapé wuñu ñu ngi toog fii ci dëkk bi am nag lu ñu mbir bi jaral te Macky Sall ak ñu mu àndal jinne pesu leen te dinañ ko teg ci yoon xam nga lu jot jot na lu jot nag tey mooy waxtaan ak mbokk yi ba mbokk yi xam lu xew gis nga fii ak neex waxtaanal parce que tant que xamuñu xamuñu tant que comprendre ñu comprendre ñu mais suñu demee ba comprendre ñu demee ba xam yow na nga dem tëddi na le toog seetaan parce que sénégalais yi am nañ full ak fayda bu toll nii xam nañ lu ñuy fajee seen gàccee bopp xam nañ ko d'accord mais nu seen parrainage bi nu mu demee parce que Khalifa Sall bi ngeen di def parrainage bi pratiquement buur mi ngi ko teg loxo xëy na bi mu mu bi mu samp moo wër Sénégal wala Dakar ngeen ngeen lijjantee seen seen lim bi parce que rapidement ngeen ngeen régler li ngeen di régler ban ban ban ban ngeen utiliser pour ban levier ngeen activer pour pour affaire yi gaawee noonu wala di ngeen ko tàmbali woon li coow li bari bari parce que seen parrainage bi dafa gaaw trop trop trop ñu ngi jaajëfee bu baax a baax a baax kii di la député maire Idrissa Diallo bu Dalifort. Khalifa Sall la ko tànn pour mu coordonner parrainage bi mu def ci liggéey bu jéggi dayoo ñëpp kontaan ci parce que dafa nekk ñitu jàmm seq jàmm ak ñëpp nekk tamit euh, nit bu gëm yàlla teg ci tamit nekk tamit nit bu ñemee liggéey. Mhm. waaw ñeme liggéey. mu jéngu ko. liggéey ko liggéey bu tegu ci yoon. liggéey bu nga xam ne nii wax dëgg problème. non pas non liggéey bi daf ko def de façon tellement professionnelle que même nous on a été séduits parce que sa Diallo liggéey bu muy liggéey da koy liggéey ak xol teg ci xelam wante xolam nit buy liggéey ak xel di liggéey ak xol àla kul yàlla ngay am ndam c'est un homme engagé auprès de Khalifa Sall donc tey il a coordonné le travail sur l'ensemble du territoire 45 départements yëpp ak diaspora bi xuloowu ci xeexu ci xëccoowu ci daf ko teg ci yoon comme un bon père de famille et je crois que Khalifa Sall xolam sedd na guy ci liggéey bu mu fi liggéey ñun nag sant yàlla moo tax fii ba Khalifa Sall di génn lépp lu nga xam ne noonu lañ ko liggéey pour le compte et le nom de Khalifa Sall man Barthélémy Dias nangu naa topp ci ginnaaw Idrissa Diallo parce que dama gis son sérieux et son savoir-faire. c'est c'est à Dakar ngeen defee seen parrainage wala dans les autres départements toutes les régions ont parrainé tous les départements ont parrainé le monde a mouvement de soutien yi ñëpp. mais Bart dana laaj benn laaj parce que est-ce que doo yaakaaroon da nga dem ba mu yàgg gouvernement Macky Sall bii ne Barthélemy nañ nañ ko nañ ko bërgal nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi lu mu neex mu wax parce que parce que Barthélemy da nga koy jàpp fii juróom-benn weer ñu ne woote nañ ko liberté provisoire te yow doo changer sa communication c'est en fait sa mode de communication pardon. lu ma ci changé fii fii parce que régime bi changé wul régime bi changé wul man de gaañi suy noonu liggéey teg ci ful ak fayda kenn du ma dégg. wante fu ma gisee ñàkk fayda ak ñàkk gëm yàlla. malgré li nekk rek sa mairie bi di la gën a xoj ngay continuer di def. di waxee man de maa ngi nii sa noonu lañ ma àtte su ma suñu duggee ci janvier bii nii noonu lañ ma àtte nañ ne ma dañ may topp ci rey ñit. waaw waaw mooy mooy mooy fet yaa fetaloon. waaw yow yaa xam ne reyu ma kenn dañ ma fekk su ma liggéeyukaay bëgg a jël su ma bakkan yàlla suturaal ma. Macky Sall Macky Sall bu may xeex. moom mu may dégg bu may xeex. moom Macky Sall bëggoon na fay suma avocat yi may dem fële Abuja Nigéria moom moo bëggoon fay trente millions yi pour suma avocat yi. ah waaw Macky moo bëggoon a nekk sa avocat fayal la say avocat suma avocat tey ma lay woo nii tey. mais Macky Sall dama àndul ak moom rek man Macky xanaa du moom moo ma dugal assemblée ma nekkoon ci kaso bi laaj laaj leen ko lu tax parce que xamoon na ne bu baax a baax defuma dara. lan la Macky Sall mën a jëlee pour fayal Barthélémy Diaz. que il te wax na ko gémmiñam nopp Sénégalais yi nee na nee na nee na Sénégalais yi dañu tooñ Barthélémy Diaz Barthélémy Diaz dafa défendre. légitime défense la Macky Sall. bien sûr Macky Sall taxaw na conférence de presse suma kër toog suma wetu pap défendre ma man xam nga nag ci mbiru àdduna dama bëgg mu leer ci boppu ñëpp man Macky Sall du suma noona ci mbiru àdduna suma grand la wante comme tey président la xam nga président moo too ko wooyee grand. waaw wante. mais yow mais li ñu lay woo ci janvier bi nii c'est vrai que ak Diouf boobu nga xam ni Fatou war na ci sa maire c'est vrai que am na groupe bu fa ñëwoon loolu d'accord nañ ci ne na ñu déplacé wu ñëw fa. groupe. Ah, mais ay nit dafa ñëwoon yor dugg ci oto. ñun ah, ñooñu de sama waay du groupe. ah lan la mbooloo mooy mbooloo waxal mbooloo. waaw ah, mais de toutes les moom groupe moom. waaw mais ba nga génne mais yow ba nga mais Bart ba nga génnee xam nga image am na lu ñu wane da ngay rafetal di di di jëngu ba gars yi tuddee la fi gàttukatu fetal bi. lu ma la lu ma la mën a wax sénégalais yi da nga leen di bàyyi ñu wax man su ma ñàkkoon suma ma bakkan tey su ñàkk man ñàkkuma fayra di ñàkk suma bakken ci ay waxu ñàkk fayra waxu politique waxu àdduna la man lu may xëccoo ci politique yëpp musuma dóor kenn musuma song kenn maintenant nag nangu naa ñu may saaga. nangu naa ñu may xas. mais am nga sécurité ci sa mère amul ngay garde corps et tout tu n'avais pas besoin du tout ça. d'utiliser quoi. ah xam gars yi nee nañ yaa tiré man xam nga man waxuma ko. <laughs> dama ne gars yooyu jamono yooyu ñoom ñoo yoroon nguur gi ñoom ñoo enquête seen enquête bopp xam nañ bu baax lu fa xewoon jël enquête bi te bind lu leen neex ci enquête bi def leen neex ci enquête bi lu ma wax juge bi du dañ nee naa ko yow vidéo bu nga am vidéo bi ay 15 minutes rek la yooyu yaa nekk buntu mairie bi for ngeen foofu lu ëpp ay 90 balles. waaw yu yu waat bal yi daanu foofu. ma ne ko yow la. nit dafa mën nekk ci mbedd bi nii moom kese rek di dóor rek di dóor te amul kenn ma ne leen gis kenn xale bu doon filmer xale TFM bu doon filmer hmm. lu mu filmer du sax xaaju genn wàllu xeex gi parce que moom ci boppam da doon aar bakkanam parce que dem si yàlla dem si yàlla commissaire Sey bu fi nekkoon commissaire jëppal Babacar Sey waaw dem si yàlla commissaire Sey bu fi nekkoon jëppal hmm. lu mu bindoon ci rapport am méngoowul ak lu nga xam ne nii moom lañ may topp wante fii yàlla ñëpp la fi nekkal xam ngeen tey ay sénégalais yu bëri lu ñu jàpp mooy Khalifa Sall du bokk ci élection yi du noonu yàlla indi yàlla wane na boppam parce que Khalifa day bokk ci élection yi. waaye yow mais yow yaay waxuma la waxu justice dama la wax ay waxu date le 19 janvier 2019 le conseil constitutionnel di génne la list des candidats Macky Sall ak ñu mu àndal mënuñu muus waane ba fii ak le 19 janvier ñu condamné Khalifa Sall mënul nekk. xanaa yéen déglu c'est-à-dire que intervalle bi condamnation mënu fi am. bëgg ngeen ubbi seen nopp yi te ngeen déglu. le 19 janvier 2019 la ngeen wax lu ñuy ñaan yàlla mooy nañu fekkee le 19 janvier 2019. amiin waaw mais yéen nag su ngeen nekkee ay journaliste yor ay télé yor ay rajo yor ay journaux ñu leen di wax lu ngeen xam ne ni moom ngeen nar a jottali askan wi ngeen di ci dugal peut-être ay humour wala ay sensation wala ay émotion du sotti non non pas du tout pas humour wala sensation le 19 janvier 2019 ma ñëw le 19 janvier 2019 oui oui tey ban jour la tey tey le 20. le 20 waaw dans 30 jours. à de tey. ban jour lay nekk. tey mooy le 20 décembre. yàgg ci 30 jours ban jour la ñuy tombé. ça fait 40 jours. xam nga dañuy passé le 19 janvier. waaw waaw mënuñu condamné Khalifa Sall loolu passé na loolu wax bu yàqu la. c'est-à-dire que condamné je comprends li nga bëgg a da nga am. xam nga tey xam naa li nga wax bëgg a wax. dama bëgg nga ma wax ma wax fi benn information. Mhm. ñoom waa nguur gi lu ñu bëgg a tey mooy bëgg gis ay nit parce que ñoom amatuñu sañ-sañ dem ci télé wala ci rajo yi di wax ay seen seen seen seen wax yu rëy yooyu tey tey soo gisee sax tey doo gis kenn ci ñoom du xale yi du cadre du jigéen yi du mag yi du kenn ci ñoom ñu dem ci télé parce que amatuñu lu ñuy wax amatuñu lu ñu wax dañu dem ba ridicule ci waxu Khalifa Sall parce que Sénégal yi dañ leen ajji parce que yàlla moo wone boppam Serigne Maodo yàlla mooy bu mooy buur bu mag ji lu dul yàlla bul ko dund. loolu d'accord gis nga yàlla suy defar day mel ni ku yàq. mbiru xalifa Sall bii kaso bi ak yëpp jaar jaar bi ak yëpp yàlla nga doon defar te nee naa la fii ak le 19 janvier 2019 mooy 35 jours avant le jour des élections il faut publier la liste définitive des candidats xam nga tey nag lu ñu lu ñuy jéem a xool est-ce que mën na nekk. ñoom ñu ngi jéem a xool est-ce que mën nañ wut ay naaféq ñu ñuy jox ay enveloppe ak ay terrain ñu mën a dem ci télé yi ak ci rajo yi pour gëmloo askan wi ne nii que rabat d'arrêt ce n'est pas suspensif. Mhm. may joxe exemple pour ñëpp a comprendre parce que am na ñu nga xam ne xamuñu luy rabat d'arrêt. Mhm. rabat d'arrêt. Mhm. mooy comme appel. daanaka ñu lay atte pour la première fois ñu ne dañ lay daan atu kaso. mais yow soo waxee damay appel. tant que demoo appel atu kaso boobu mënuñu ko teg sa casier judiciaire. ah parce que demagul appel. voilà parce que maintenant ñoom lu ñu bëgg. Mhm. mooy gëmloo askan wi que même ñun suñu appelé. Mhm. appel boobu yàqul dara ci ñu jël condamnation bi duggal ko ci casier judiciaire bi. te loolu mënul nekk ci tànk yooyu lu ñu nekk parce que dañu jaaxle. non wax naa leen bu leen jaaxle jarul jaaxle yàlla moo ñëw. d' accord kon yàlla moo leen dar képp quoi mënatuñoo gën ci internet ñëw d' accord Barthélemy yan kàddu ngay jeexale ndax Sénégal yëpp ngi lay déglu di gërëm ñëpp di sant ñëpp nag ci turu xalifa Sall mhm. ci ñaan yi ci yéene bi ci taxawaay bi pourquoi nga mais parce que Khalifa doomu gor la gor la xalifa Sall est un homme extraordinaire Khalifa Sall est un homme extraordinaire Khalifa Sall defu fi lu fi kenn deful waxu fi lu fi kenn waxul wante lu tax Khalifa Sall nekk ci xol yi ndax mbaaxam. d'accord kon nag di gërëm ñëpp. Mhm. di sant ñëpp di ñaax nag askan wi àndale nag dal dina day bokk ci élection yi incha allah na ngeen taxaw nag taxaw tem parce que taxaw tem moo jot ñu xeexuñu ak Macky na joxe carte électeur yi parce que su ko joxewulee man ak Sonko ak ñeneen dinañ continuer def lu ngeen xam ni moom la ñu constitution may ci sañ-sañ mooy dem di wax ak askan wi il faut Macky Sall teg ko ci yoon parce que loolu mooy gage de stabilité gage de paix et gage de tranquillité di gërëm ñëpp di sant ñëpp di la tamit ci invitation bi. jërëjëf Barthélémy Dias maire bu Sacré-Cœur Mermoz ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm nekk tamit ci ci mbootaayu Khalifa Sall ci taxawu Sénégal déposé ngeen seen ay parrainage tey jii Khalifa Sall ñu ngi waxtaan ay mbiram ah li nga wax tamit dégg nañ ko Sénégal yi ñu ngi lay déglu ñu ngi lay sant bu baax a baax vraiment di la gërëm yi tamit ci sa disponibilité parce que souvent la plupart du temps pardon bu ñu la woowee rek da nga ñëw bàyyi sa sa sa yëpp ngir waxtaan ak sénégal yi mais Sénégalais aussi moon nañ la euh, fii ci Sud FM ñu ngi lay sant bu baax a baax beneen dimanche incha allah ñu di kat ci beneen gaan wasalaam